ma tegal leen ko ñu xam loo xam ne ne droit bi ma may ma war a mën a tukki te jamono juñ toll nii mënuñ ma tere tukki bu dee yoon la wax nag ci wàllu droit ak loi ndax assemblée nationale est déçue existetul ci wàllu a été dissoudre nañ ko mais assemblée nationale bu fekkee qu'elle dissoudre nañ ko baax nañu xam article 87 de la constitution là, la ci wax bu dee jàng nañu walla droit baa ngi nii ñun faalewuñu droit lu ñu neex la def aussi ñu xam dictature dictature la rek article 87 la constitution Sénégal foofu la voter voté loi yi Farba Ngom moomu Ousmane Sonko Momuko, ko keneen ku dul ñun moomuñu ko fii lañ ko fekk lañ koy ndax Sénégal ñu ngi nii ana Senghor ana Lamine Gueye ana Abdou Diouf ana Abdoulaye Wade ana Macky Sall ça va devenir le passé dans l'avenir article 87 de la constitution de ne le président de la République, peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée. Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus après la date de publication du décret. Finalement, Amsolo, toujours dans l'article l'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée. le firi député yi nga a assemblée dissoudre nañ ko un mandat qu'elle lay définitivement ça a ñu élire nouvelle assemblée bi ñu war a tànnaat après ñu voté suñu joxee seen résultat officiel ci le mandat député yu ñu desul ci la ci lay jéxé baax na ngeen xam lool fim mu nekk nii dañ ñu fay suñu salaire am nañu droit bi député amone am nañu droit bobu jusqu'à assemblée bu bees bi di réunir député yoyu am nañu droit bobu te ba fima ma taxaw ni yëguguma ñu voté à l'assemblée dindi sama parlementaire wala suis pas au courant donc amna euh, journal témoin wax waruma ci parce que jotuguma keuyit papier bu may wax te fi après les élections demna Canada demna Maroc Abidjan fune demna Paris partout donc yëgguma que man mangi bok bokk si ñu tukki dina ban argument lay doon lan lañ may topé? voilà bu politique nak, bu politique nak, politique politique la wax bu politique Ben la am imam Bobu, mu ngi tuddu Macky man je l'assume aujourd'hui je l'assumerai demain et je l'assumerai après-demain Wow. je